Ousane Sefa Garida te dafa mel ni poids lourd la ñëw nag Sefa ndeysaan moom tamit champion la moom bàyyiwul benn catégorie moom Sefa ndeysaan ku mu sentir dem ndeysaan Sefa dafa mel ni tey poids lourd la ñëw ndeysaan moom bàyyiwul benn catégorie bu mu ko rek dem éé ndeysaan kooku mooy CFA CFA bu jaxaaw ah. ndeysaan kookoy CFA